sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene liggéey mbokki murit yi <clears throat> ñu ngi leen di nuyu leen jottali nuyoo bu bàyyi ci sëriñ Cheikh Ndiaye jëwriñu sëriñ Amdi mu sëriñ Modou mbend mu maam Cheikh Ibrahima Fall toogal fi tey jii Cheikh Ibrahima Fall nuyoo bi nag li ko waral lépp. mooy dëkkub sëriñ Touba bi nga xam ni <clears throat> ba mu koy sanc booba tubaab yaa ngi fi sanc ko ndax lislaam moo taxoon mu sanc ko am yu mu fi bañ am yu mu fi bëgg dëkk bi nag day dëkkub yërmande boo xam bii ni sëñ bi ñëpp la fi woo waaye ci ko woote bi mu fi woo ñëpp nag da ko woote ci siraatal mustaqim waaye nuy dem ba gis ni dëkk bi mu ngi bëgg a mel ni yeneeni dëkk te yëmut ak yeneeni dëkk ndax euh, boo gisee woote bi sëriñ bi di ko wax mooy démb ku xool ci Lamp Fall FM ak yeneen tele yi mel ni ki moom euh, sëriñ Bassa ngi toog di wax di joxe ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi digle ci dëkk bi sa bëgg nu defal ko ko léegi nag li ci am solo mooy ñii nga xam ne bi ni dañuy jabootu maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa ngi leen di woo sëñ am di jaarale kàddoom ci sëriñ Cheikh Ndiaye ku yaakaar Cheikh Ibrahima ku ne na nga xam ne am na liggéey boo xam ne bi sëñ bi joxe na ko ci Touba ci dëkk bi la ca jëkk nag mooy gaar bee nga xam ne fu fu fi waay mën a ne ci dëkk bi ak senegaal ak bitim réew dégg xew-xew ya fay xew te loolu yëlloowul ak Touba loole nag la sëriñ bi bëgg nu jëlee ko fa ak yeneen yi demee noonu te nekk ci quartier yi nekk ci biir Touba te mel ni gaar ba ci ay ay ay ay mbir ndax di fa jëfandikoo yoo xam ne sëriñ bi soxla ko ndax loolu rek moo taxoon sëriñ Abdoulaye bi mu toogee mu ni lii xam na ci tànk tuwéyam li yëllowul ak dëkk bi fas yéene mu jóge fi loola demoon na ba dem yërmande sëriñ bi nag ju ëpp tax na nit ñi defee ni dëkk bi day seen maam da koo sanc wala seen bàyyi da ko sant wala bi ko sëriñ bi sanc maam yi kenn ànd na ak moom loo loolu yërmande bi rek moo tax ñooñu di bëgg a doxale noonu sëriñ bi rek nee na loolu du ko nangu tey du ko nangu ëllëg ndax li tax ñu bàyyi ko fi moom xam na ko seetal dëkk bi ci melokaan wi sëriñ bi bëgg loolu moo tax ñu bàyyi ko fi yërmande ji nag mooy ku dikk mën ngaa dëkk ndax ku dikk mën ngaa dëkk ndax sëriñ bi moo woo ñëpp te bëgg a soowe ñëpp a tax moo woo ñëpp ci dëkkam bii léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na na ko ñëpp wuy si ajjuma fas nañ yéene jublu ci liggéey bi tàmbali ko liggéey bi nag yemul rek ci gaar bu ndaw ndax dañoo ci gaar bi dañoo bëgg bu noppee bu nu noppee ci loolu feneen fu ñu joxoon joxoñ itam nu jublu foofa fas yéene la fa bi bëgg na ko bëggee nu defee ko nii loolu mooy bi sëriñ bi woote Euh, démb nag sëñ euh, sëñ Basirou am na kàddu yum ci sànni yoo xam ni def naa ni ñu bari dégg nañu ko léegi nag jamatug Cheikh Ibrahima ñoom na na ngeen xam ni na mel ni carrière la ñu woote na mel ni xel koom la ñu woote na ñëpp wuy si te kenn kuy ñëw ku ne na ànd ak sa jëfandikukaay yi nga xam ne moom lañ fi jëfandikoo ndax kat dana am toj dana am déjji dana am lu ngeen lu ñu foog ne du fa am rek dana fa am lu lu dul jàmm rek lañ lañ fa soxla nag soxla wuñ ci lu dul jàmm bu bu bu mbooloo mi dajee daal fu sëriñ bi joxoñ ni nii la ko bëggee nan ko defee noonu sëriñ bi nag dafa waxoon ni bëggul ko gaañ kenn bëggul ko dóor kenn bëggul ko xaawi sutura loolu mu loolu mu bëggit noonu noonu lan fas yéene defale ko ko nii waaye li nu li mu bëgg ci dëkk bi daal fas nañ yéene ni mu ko bëggee nu defe ko nii loolu mooy woote bi nga xam ne moo taxoon sëriñ bi woote tey jii eh, ñi nga xam ne bii ni dañu faa ne nag te nga xam ne dañ faa yori bagage te bokk ci dëkk bi sëriñ bi nee na nañu teel a fagaru génne seen i bagage ndax may nañ leen euh, euh, diggante boo xam ne bii ni wax dëgg yàlla tuxal say say say bagage yóbbu ko fi barab xaj na fi ndax feeg àjjuma lu ne xaj na fi ku ko ku ko bëgg di di ndax ñii ñëw nag bu ñu dikkee ndigal dong la ñuy jëfandikoo ñoom jëfandikoo ñu dégluwuñu keneen baatub sëriñ bi la ñuy déglu te ndam ko bëggee noonu lañ ko fas yéenee defee kon yéen ñi nga xam ne da ngeen faane te yori bagage te leen a fogoru may nu bu nu ñëwee ngeen yombalal nu li ñuy def mu bañ am benn benn euh, jiixi jaaxa loolu daal la sëriñ bi waxoon nañ leen ko jottali boo gisee télévision yi ñu woo leen ñu ñëw fi dañoo bëgg rek kenn ku ne tele boo mën a jàpp dégg ci waxtaan wi ak woote bi ñi nga xam ne ñooy njabootu euh, murit yi nag ñëpp la ñu woo ndax sëñ bi moom ñëpp la fi nekkal murit yëpp la fi nekkal waaye dafa xam ne daa am ndigal loo xam ne lii ne bu jógee kam koy teg ci loxoom mu jiite ko mooy ka nga xam ne wóor na ko ni bu tegee ci loxoom na mu ko bëggee dana ne amee muy maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax mu jiital ko ci ndigal li waaye murit yëpp lañ ci woo ci liggéey bi ndax noogu yéen noo bokk dëkk bi bokk Touba bokk bokk sëriñ bi kon nag kenn ko ne defaru te fas yéene ànd ak ñun ci liggéey ci ni ko sëriñ bi bëggee nag nu di ko ni defee loolu la sëriñ bi waxoon ni nañ leen ko jottali ba kenn ku ne xam ni ajjuma ji nu jëm ku yaakaar bi Ibra wala ngay murit te tey jëfe ndigalul sëriñ bi nanga nu fekk si Touba ci liggéey bee ca gaar ba bu nu fa jógee am na yeneen liggéey yoo xam ni ña nga fa ci lëkk ba yoo xam ni fas nañ ci yéene jublu waaye dañoo bëgg bu lii noppee feneen fu ñu joxoñ rek lu jublu foofa da fexe ba mel ni gaar bi ni ko sëriñ bi bëggee mu mel ni lorunu kenn nag xeexunu xuloowunu la ñuy def daal mooy jëfandikalul sëriñ bi koo xam ne kii nag ànd nga ci jëfandikalul sëriñ bi da yaakaar naa doo am ak noonu jooyoo ku am sa sa koo xam ne kii nag yow da nga ay yor sa xalaati bopp ak sa melokaanu bopp ah loolu ba war nga abal da xam ni nun moom jëfan jëfe ndigal rek moom lañ sant te moom la ñuy def ndax moom lañ fi fekk te fas nañ yéene ci la ñuy ne bi ban fi bàyyi ko ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp woote bi nag liñ ci jublu mooy bëgg rek ñëpp yëgandoo ko waaw ajjuma daal nañ ñëpp daje ca gaar ba te fas yéene liggéey li sëriñ bi bëgg nu defale ko kon ni mu ko bëggee jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu nuyu bokk yi yëpp ñu nuy teewlu ci turu sëriñ Saliou mii toog doon jottali kàddug sëriñ bi ñu ñaan yàlla sama borom yàggal ko tey wéral ko mu ànd ak sëriñ bi liggéey bi lu yàgg yàgg di e, jottali kàddu yoo xam ne ndigal la loo xam ne dafa jaar ci sëriñ Saliou moom egsi si nun war a jàll si mbooleem murit yi nga xam ne ñoom it am nañ ndigalul ñëw jëfe lii nga xam ne mooy bëggug sëriñ bi noonu ko sëriñ bi waxee ndigal li moom rot na fu mu bàyyi koo kër sëñ Touba ñëw kër maam Cheikh Ibrahima Fall kenn ku ne xam na ni fu ndigal ma sa bàyyi koo kër sëñ Touba ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall faw des koy jëfe ndax mbañum kër Cheikh Ibrahima mooy ñàkk a bañ a jëfe ndigalul sëñ tubaa te mbañ moomu fasuñ si yéenee tab bi mukk sedd na loolaa doon sababu sëriñam di Fall mi nga xam ne mooy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, bi mu jotee ndigal li mu ko ak ki nga xam ne moom mooy jëwriñam di sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng moom Cheikh Modou Moussa jox mu mu mu muy santaane yaatal liggéey bii wax ko murid yi wax leen ni mu toll ak ni mu yaatoo ah, jaarale ko ci jëwriñam ñi nga xam ne ñooñ la tànn muy Serigne Saliou mi nga xam ne moom la tànn mu mu yore kàddu gi doon ko jottali ngir li mu si jublu ni ko Serigne Saliou waxee mooy xamal murid yi ne du liggéey bu ndaw liggéey bu yaatu la liggéey bu rëy la liggéey la boo xam ne ah, xañ na bari na liggéey yoo xam ne ah, tollu ni moom lii sëriñ bi deflu foofee sa gaar ba di loo xam ne moom moo xam lam sa jublu ak lam sa bëgg waaye lu mën a xew mooy xam nañ ni bu sottee njariñul murit yëpp lay doon ndax ni ko sëñ Saliou waxee sëñ Tuubaa moom yërmande rek la woote ba muy woote dëkk bii nit ñi di ñëw ni ko sëñ waxee démb musuñu fee jaay kenn kër ku nu fi jaay kër rek dañ la ko may nga wëlbatiku jaayaat ko waaye sëñ moom dafa nattoon jox ñëpp ñu dëkke kooki nag jàmm la woote si ab dëkkam euh, sutura la fa woote ak taalibi la fa woote diine la fa muy lislaam loolu nag xañ na loolu la sëriñ bi bëgg ñu yeesalaat ko ndax àddina moo baaxoo noonu kon nun murid yi lii suñu wàll si liggéey bii mooy nu wuy si nag fu nu mën a ne si àddina mooy fu nu nekk si àddina muy biir réew mi aw bitim réew na nanu xam ne ni ko sëriñ Saliou waxee mel na ni carrière wala mu mel na ni xel xelkom wala mu mel ne ndigal yu mel ni ñoom yoo xam ne ñi mas naa jóge na sëñ Touba ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall képp kuy ñëwit sëriñ bi sàkko na nga indaale ay jumtuwaay ndax am na loo xam ne machine a koy def waaye am na loo xam ne nit ñi mën nañ ko si martu li dale si martu mooy martu yu mag yooyu nga xam ne mën naa daaneel ay miir wala ay bâtiment ak lépp loo xam ne jumtuwaay la lu jëm si oto benn yi nga xam ne dañ koy soxla ak caterpillar yi ak pokalin yi nga xam ne dañ koy soxla ngir daaneel tabax yi loolu lépp sëriñ baa ngi sàkku ku dégg woote bii te xam ni loola am nga sa man-man nga def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa ak Cheikh te xam ne ku fa ñëw dana fa fekk njaboot gi dana fa fekk jëwriñ yi mu tànn nga xam ne ñoo jiite liggéey bi li si dolli ko mooy murit yi xam nañ ni seen bëgg-bëgg mooy jëfe ndigalu sëriñ bi rek te xër nañ ci xër goo xam ne mën na noo dem ba am nu raaxaloo si seen biir wala nu àgg si loo xam ne defee ko noo xam ne bokkul ak na ko sëriñ bi diglee te ndigal moom dana wax ne caabi la bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi kon danoo bëgg murit yi suñu xëysee ajuma jàmm foo fii camion suuf yi di taxaw mu murit yëpp mën nañoo maase daje fa suñu fa dajee bu kenn yëkkati dara nañu xaar jëwriñ di sëriñ bi tànn ba mu ñëw won leen li ko sëriñ bi liggéeyloo su tànnee ay jëwriñ ànd ak ñoom dem nu wër ba mu won ko li leen li sëñ bi bëgg su dellu see nag joxe ndigal nag muy coup d'envoi bi nag ñu soog a song liggéey ba nag daal say nekk ba ba muy àgg waaye bu kenn xëy yor sa martu mbaa nga yor sa poto dem xëy tàmbaleel sa bopp te sëriñ bi won ndax sëriñ bi dafa am lu mu joxoñ loo xam ni loola la bëgg mu dañ loolee nag lu luñ sa yokk uh, jéggi nañ digal li luñ sa wàññeet wàññi nañ ndigal li te ab taalibe moomut loolu kon ku xëy si na xam ne na teew foofee sa camion ya bu fa murit yëpp dajee danañ fa fekk sëriñ bi jëwriñ ji nga xam ne moom la sëñ bi tànn dina leen won fi ñuy tàmbalee ak fi ñuy yem liggéey la bu yaatu nag boo xam ne bii du benn fan du ñaari fan kon kuy ñëwit na nga fanoo loolu te jumtukaay matuwaay ya nga yittewoo nga nga wut ko te indi ko ni ko sëñ Saliou waxee nag tànn na jëwriñ ñu mat sëkk Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue ngi si kanamu mbooloo mi mooy joxe ndigal yi fépp fu mu joxoñ ñam ko jox ñoom danañ ko jot li murid yi murid yi war koo jëfe na ko sëriñ bi bëggee kon loolu rek la sëriñ bi waxoon nu soññee ko ña féete sa gaar ba nag ni ko sëriñ bi waxee yable na fa démb ay ndaw ñu dem xool liggéey ba ba xam na mu mel sëñ bi noonu mu soññee képp koo xamante ni kii am nga fa place magasin wala nga am fa place wala nga am fa atelier booy liggéeyee eh, wala fii di taxaw dem ba sa marché ba ba jàll sa maal ba ba bëtt jàll ba fa fa fa fa ndox may daje euh, loolu lépp lu fi di cantine lu fi di mbaar lu fi di magasin lu fi di bâtiment képp ku ko fa am xamal ni loole loolee Serigne xaa jox na ndigal sëriñ am di mu jëlee ko fa ba mu set wicc te li Serigne bi bëgg kon faw mu di def ko kon nag foofa moom jërut woote ñu bare ngi woote di laaj ndax fa ñu ne si la bokkam bokku si waaye Serigne Mountakha daal li mu wax mooy 120 mètres boobu yi nga xam ne moo déparé foofu fi camion suuf yi taxaw tey jubal mel na lu jëm gànnaar dem ba sa biir marché ba muy magasin ya ak place ya jàll ba sa maal ba bëtt maal ba jàll dem ba sar ba génn marché bi loolu lépp ku fa am mbaar wala place wala magasin wala bitig xamal ni wala kër xamal ni loolee sëriñ bi jox na ndigal ñu dindi ko murit nag ndigal rek lay déglu dina woyof tooy nag ndax ñëpp bëggu sëriñ bi rek mooy sunu bëgg kon ñi ngi ñaan ñëpp wuy si woote boobu te xam ni lii kat mooy soññee bi nga xam ni sëñ bi bëggoon na ko muy ndimbal loo xam ne ñun ñëpp tàbbi nañ si kon bu nu bu nu bu bu nu xaar ba nu egsi nag kenn ku ne naan nañ ma may ak nañ nañ ma nañ xaar ndax murid yi moom bu nu ñëwee rek dañuy daal di tàbbi si liggéey bi waaw kon képp ku si amit loo yittewoo loo bëgg a xam boo jokkoo ak sëriñ Saliou mii di jëwriñ sëriñ bi dina la ko wax na nga xam ne noonu nga war a def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. génne mbedd. dafa génne mbedd. génney kër génney kër. kon ku ñëw fekk mbedd. kon ku fekk mbedd. fu ñu lotissé ba noppi. fu ba noppi. xotti fa mbedd. xotti fa mbedd. nga samp fa lu la neex. nga samp fa lu la neex. da ngaa def lu la neex. da ngaa def lu la neex. waaye loola warut. bi ñu koy lotissé. bi ñu koy lotissé. sëñ Fallou Nefi. sëñ Fallou Nefi. ñu di ko lotissé. ñu di ko lotissé. ñu bari defe woon nañ ni. ñu bari defe woon nañ ni. dañuy yàq dañuy yàq. waaye bi ñu noppee. waaye bi ñu noppee. lépp defar la la. kon kon bu nu defee noonu suñ saaliw ñëw dolli si lim si dolli si yaatal akuk melokaan wax dëgg yàlla kenn ku ne war naa xool lu jaadu mu di ko def ku fekk boulevard mbedd nga samp fa sa kër yaa ko tey am na ci ñoo am na si ñoo xam ne nii. ku ñëw ba fa ñu nekk. ñëw ba fa ne. ñu wan la lotissement bi. ñu la lotissement bi. day mel ne la ñu def. day mel ne la ñu def. maatay lay nuru maatay rek lay nuru. dëkk bi nag te dëkk bi nag. yërmande jee bari. yërmande jee bari. waaye mën nañoo doxal dëgg. waaye mën nañoo doxal dëgg. moom rek la ñuy doxal te moom rek la ñuy doxal. sëriñ bi du defar ba noppi nag. sëriñ bi du defar ba noppi nag. keneen jóge ci àll ba. keneen jóge ci àll ba. bëgg a salfaañe li sëriñ bi. bëgg a salfaañe li sëriñ bi defar. ah loolu sëriñ bi du ko nangu. Ah, te ñii mu jox ndigalit duñu ko nangu ñëpp xam. yàqunu yàqunu. Cheikh Ibrahima mi woo ñëpp. Cheikh Ibrahima mi woo ñëpp. ne njëriñ a ngi nii ne nii. wan leen ni ñu koy jëriñoo. wan leen ni ñu koy jëriñoo. xam nañu ni. kooku xam nañu ne. Euh, euh, siisul kenn. siisul kenn. bëgg na ñëpp jëriñu. bëgg na ñëpp jëriñu. kon nag bu ñu ko joxee liggéey. kon bu ñu ko joxee ab liggéey. muy ndigal lii ci Touba. muy ndigal lii ci Touba. te sëriñ bi ba muy liggéey Touba. te sëriñ bi ba muy liggéey Touba. raay bi jóge njaareem di ñëw. raay bi jóge njaareem di ñëw. kenn fekk ko ci kenn fekk ko ci jumaa ji jumaa ji ba mu koy samp ba mu koy samp kenn fekk ko kenn fekk ko si dum naar dum naar du bokk yi mu dëkkal du yi mu dëkkal si réew mi mboolem lu lu ñu fa def rek. mboolem lu ñu fa def rek. muritam yi ko gëm. muritam yi ko gëm. te yàlla tax ak yonent bi. ñoom rek la àndal. ñoom rek la àndal. ba dëkk bi mel nii mu mel. kon nag bu ëllëgee lu mu fi mën a soxla it. a soxla it. ñooñu rek lay woo. ñooñu rek ndax xam na ni bu leen woo. ndax xam na bu leen woo. la mu bëgg ci dëkk bi. la mu bi. dana am dana am. te loruñu kenn nag. te loruñu kenn nag. ndax Touba ku fi ñëw xam ni. ndax Touba ku fi ñëw xam ni. du dëkkub loraange. du dëkkub loraange. sëñ bi yërëm na ñëpp. sëñ bi yërëm na ñëpp. waaye nan koy teg ci. waaye nan koy teg ci. siraatal